victime yi waaw maa ngi noonu. maa man victime laa de dama dama dul ñëw rek. waaw ah. victime nga parce que am na lu ma jot ci yow démb. waaw man victime la dama la ko fàtte jox. waaw victime la man moom fu ma toll man gis nga ko rek waaye damay bàyyi noonu. Ah. waaw waaw deema yi ngay jot nag deema ko jox. amul solo ndax man mi dina am yu may jot waaye dama koy téye. moo tax may téye kon kañ yaay nga sa bopp. <laughs> waaw waaw yoroon na. Adja tey man de xam naa ni jàmm ak salaam rek ngay jot. Ah, waaw waaw waaw dëgg la waaw ah, dëgg la xanaa daal ma victime ma delloo màkka daal nañ ma fa. xanaa stratégie bu may teg daal pour ñu kidnappé la yóbbu la. <laughs> ndax Mbaye Ndiaye ah, laa déggoon démb man euh, maay plateau bi maa fi victime seen diggante yéen ñaar ñëwal. incha allah maa ngi su bàyyil léegi maa ngi nuyu ki ci régie bi macha allah réalisation bi am na solo yàlla yàlla barkeel xam nga li ma la wax. amiin euh, maam Makhtar Gueye bu Jamra xam nga gëj nga koo gis. kii gëj koo gis maam dafa tawatoon. dafa ah, waaw dafa tawat waaw gis naa ko gis nag bi muy réagir. ci waaw dafa ngi koy wax sax ci élément bi ñu bëgg a door. waaye Yirim mi fi bindoonu euh, téere bari ñum ca sosal ñooñoo ko wax nag man waxuma ko ñooñu ñoo ni Yirim da na a sosal. Hmm. Yirim daa sosal maam Matar Gueye bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ma Matar nag ca feebar ba fexe na ba jóg ba solu mbaxana sol lu diis fexe ba am kàttan wax na ay wax. ñu dem rési ci comédie. Ah, li ma wax <laughs> ñu dellu si waat était obligé ndax yenn yi xajul ci gor de braver l'interdiction du euh, formelle du médecin de reprendre mes activités tant jotuma ci ndigalam j'ai été obligé de braver ça ndax dëgër boppu Cheikh Yérim Seck ak mën na tooñam waxuma la fi woon ni li nga wax ne que dama wax ak ton ami Cheikh Ahmed Cissé ba noppi la ma wax ak moom ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux démontré wu ma la woon ne que c'est mënoo bàyyi di sosal nit Cheikh Yérim Seck tooñ baaxul ce qui est dramatique mooy tu persistes dans tes wax naa la ne ñun duñu la bàyyil dara boo tayyul duñu tay deuxième contre-vérité ci sa conférence de presse bi tu persistes toujours à dire que Ahmed Cissé dafa poser un un débat ci xam-xam Makhtar Gueye bu Jamra ëllëg ñu tontu ko ci xam-xam ñu yóbbu ko ci procureur du dëgg waaw nga ne te procureur mënul àtte ci charia intellectuel bu day ni yow dina wax loolu depuis quand le Sénégal di àtte woo ci charia Depuis quand le Sénégal nekk qu'un État islamique Procureur référence am c'est le code pénal le code de procédure pénale nga ne que euh, bi nga xamee ba léegi damay critiquer rek te du ma bëgg kenn critiquer ma que ay kilifa bàyyi doomu jàmbur yi ñuy dem di leen sàkku nga xam ne bitim réew la ñuy jógee natt moo leen fa jële loolu du loolu critiquer la man mi dénoncé loolu nag yow nga dal sama kaw yow kay yaa critiquer voilà et je termine en me posant la question yow xanaa da nga supprimer le principe déontologique de recoupement de l'information bi ngeen di faral di wax yéen dans votre profession ndax contre yi nga dégg yépp a commencer par góor jigéenu diaspora yi wax ne sama doom a ngi États-Unis di fa yàqu te mësul voyager de sa nga jóg jël ko comme argent comptant boole ci une autre contre-vérité consistant a dire que police moo ko retrouvé dans une auberge te commissaire euh, Bara Sankhare ki manta dem naa ba ci moom téye xale bi nee ko xale baa ngi ni feeñ na arrêtez les recherches ana fu ko police trouvé dans une auberge donc yooyu yëpp góor jigéenu diaspora bi concocté ko pour yàq sama der et me faire taire waaw malgré tout ça tu persistes chaque fois booy wax dans un esprit de de de de de colporter des ragots et de la médisance kenn mënul muus ba doo évoquer cette affaire là dans une volonté manifeste de nuire et de faire mal alors léegi je repose ma question xanaa recoupage d'information amul ndax ba góor jigéen yi nettalee loolu avant nga koy bind laaj nga ma man wala li góor jigéen ñi wax rek doy na la comme source ñu ngi lay ñaan nga bàyyi tooñ xaw ma kan ngay jam naa ni waaye Jamra boo ñu tooñee di nga ci bëgg génn mu tël Mame maxtaar Gueye euh, ak euh, ki nga xam ne moom mooy euh, journaliste boobu di Cheikh Yérim Seck man moom Cheikh xaw ma nan la def ba nekk journaliste ma sukkandikoo ci li may gis ndax seex ñetti weer wala ñeenti weer yëpp damay gis seex di wax loo xam ni boo xoolee ba ci biir dara du ca dëgg euh, toogoon na fii mu ni incha allah bàyyi na rajo bàyyi télé bàyyi wax dina jaayit li mu am lu jëm ci wàllu communication dem toog toppatoo doomam ñu ni deetawaay borom mbaxane mii ngeen seen borom mbaxane mu seer mii daal ni li mu wax wirut dina ñëwaat gannaaw baat seex ay bindub téere ba mu bindeeb indi ko ci société bi borom mbaxane mii toog jekki-jekki daal ni seex de léegi ngeen gisaat ko nag ginnaaw bi muy wax ci télé yi nag ci la ran raatambale ba sosal ma maxtar gay bu ñu sikkasndikoo ci ay waxam nee na doomam musul génn senegal góor jigéen yi ko doon sosal wax loolu waa ji ni ko coppet dem def ko arme ñaaral bi itamit li mu wax ci Cheikh Ahmed Cissé man témoin laa ci audio boobu ñu gis ñu génne Mame Matar Gueye génnewu ko Ahmed ci boppam ba audio bi ñu tegoon jomet ñun teg nañ ko victime di net mais Ahmed Cissé moo ko génne ci li ma xam Mame Matar génne génnewul audio boobu noo gisee tooñi seen mbokkum journaliste bi. <laughs> neel Cheikh Yérim rek. pour bañ a maas noonu gi. waaw te yam ci Cheikh Yérim Cheikh Yérim moo wax wax ji. te seen mbokkum la journaliste bi laa wax. waaw Cheikh ah kenn mën ko génnee ci journaliste yi. ah non tamit eh, journaliste la journaliste am na jaar jaar te am na taxawaay ci métier am léegi da ngay rafetlu rek wala nga ñàkk ko rafetlu. taxaw kat seen léegi eh, damay gëm ni jamono yi li Cheikh Yérim di def dafa nekkatul journalisme quoi. ah kon kay si nga ma. Ah, waaw man dama jàpp ni eh, dafa nekk ci beneen logique. Euh, logique boo xam ne tey jii mooy euh, yor na ay mbiram di ko doxal maanaam il fait de la communication les communication boobu la nag ku ne ak forme bu mu koy defee moom form bu mu ko defee peut-être provocation la wala bokk mi presse le faux pour avoir le vrai parce que journaliste dañuy def loolu maanaam waxal la loo xam ne wóor na leen ni lii amul mais daa am leneen lu ñuy jublu ci wax ji léegi nag wax ju ne tey jii daa am loo koy laytaaye mooy Cheikh Yérim rek ci. Mame Matar xanaa Mame Matar dafa bokk symbole boo xam ne ci wàllu diine Sénégal. Mhm. Euh, lépp luñ ci laal wala lépp lu koy yàq rek Mame Matar day taxaw boo xoolee Cheikh Yérim ci ànd sàmm jikko yi woon. mooy bi ñu fi wax ci débat ci homosexualité bokk na ci ñi njëkk a am courage yu ñëw dal ci ànd sàmm jikko yi mhm. ànd sàmm jikko yi mënoo ko wax génnee ci jamra jamra kon Cheikh Yérim tey ñan lay liggéeyal ak ban logique la ne ak ban taxawaay moo waral tey ji ñu mel na Mame Matar ñu mel na ànd sàmm jikko yi mu mën a ñëw di dugg ci ñoom nii bay waxee nii. Mm. parce que li muy wax ci doom Mame Matar bi am na amul mais c'est de l'histoire ancienne. Mm. maanaam loolu nekkatul actualité loolu weesu nañ ko dana waroon tourner la page. Mm-hmm. na nekk ci leneen. mais do wax ji du Mame Matar pour man mooy si euh, doom ji mooy cible mais mais Mame Matar mooy cible Mame Matar mooy cible léegi lan la jublu ci diggante Mame Matar ak lan parce que nee na ko da ngay di wax ci lu nekk ba mu des sa doom ji réeroon dem ca auberge te doo ci wax moom mi ngi wax ci lépp te waxul ci doomam jën jiñoon viol ah wax nga dëgg de cest que des fois wax balaa koy wax da nga koy togg ba mu ñor doo ko génnee mu wax ci lépp ba mu des ci doomam mhm. te pourtant ba muy dem toog di def euh, recul ne day dem wér ci boppam boobu bokk na ci li ko retiré mooy doomam waaw maanaam foofu mu teg doomam ba jàpp ne dañ ko war a sàng sutura na fa teg doomu jàmbur yi rek ndaxte wolof dañ ne doomu jàmbur ku ko yàq da nga kaa jurul séerim nag man dama jàpp ni nit àddina nit day wow ak di tooy bu doon ni ab garab dañ naan garab loogu goo xam ne yematul ci wow waaye reen yaa dee te doo bëgg dundaat te loolu mënta ne. d' accord jaajëf mbo sa mbokkum journaliste moo la ko wax muy Omar Goubou Khatab Gueye euh, meilleur journaliste de 2023. petit journal. <laughs> waaye li nga d' accord day wax xalaat rek euh, na ma jégal nag bu dee ri kàddu yi moom mooy loolu. Ah, suka kon bu ñu dégloo maam Makhtar Gueye déglu li Omar wax euh, kon waa ji day toññar bi. maanaam maam maxtaar mu sa wax tudd njabootu Cheikh Yérim mais Cheikh Yérim bu waxee balaa dëgëral li muy wax rek tudd doomu maam maxtaar bi nga xam ni leeral na histoire bi ni police joxu ko ko moom moo jàpp ci loxoom dem yóbbu euh, soxna bu hmm. gor gu ne war ngaa euh, bañ ñu ne yaa tooñ hmm. gor gu ne war naa bàyyi tamit di wax loo xam ne wérul max hmm. euh, maxtaar ni ko bàyyi loo wax du noonu toog na dafa xam nga temps yi na damaa jël damaa jël sama décision bopp di toog di seetaan ak déglu sérieusement nag. Ah non sérieusement. non loolu moo war ma dama am benn kii boo xam ne ah. ko wax ba wallaay non non non mais daa am koo xam ne dafa ma ciy forcé ni ma dee ko seetaan. voilà damay jël sama temps nag. d'accord di ko waaw di kon actualité bi lan la maanaam. Cheikh Yérim Cheikh Yérim li mu li mu wax lépp dafa bari. jour boobu temps mhm. Moustapha Diop sax bu wal faj fajri ma nga fa woon li mu wax lépp dafa bari mais nit ku ne euh, son yi bu mhm. war nga euh, rus. ni yaa tooñ wala yaa fi wax loo xam ne amul gor gu ne surtout nga nekk koo xam ne da ngay wax te ku ne da war a gis nga bu ku ne boo wéetee ci sa manakaan da ngaa war a xool sa bopp. Mhm. xam nga wax bi. waaw boo wéetee tuuti. ruq manakaan ruq sa ruq manakaan di nga war a yow li nga war a wax war ngaa xool ba xam bala nga koo wax faaw nga lii bala ma koo wax xaaral ma seet ko seetaat ko ndax ku ne da ngaa am sa démb. Mhm. moo tax nit da ngay am noo xam ne danga koy xo bala ngaa tooñ doom doom ñu lay tontu xoolal yow sa bopp ba pare. Mm-hmm. nit ki bala maa tooñ bëti naa xool man lan laa war lan laa mel. Mm-hmm. ndax bëti am na loo xam ne man amuma ko te am na loo xam ne man def naa ko te bëti defu ko te teewul bu man waruma koo mën a yàq. nit du mm-hmm. yàq góor. d'accord nit du yàq koo xam ne dafa jàpp ñaam bu waxul ci yow waxul ko maam ko gis xam ne. bu waxul ci waxu góor jigéen mi ngi xool ci loo xam ne nit ñi ñu ngi koy wax mu di ci mu di ko mu di leen recadré kon am na loo xam ne gor du tooñ doomu aadama mhm. voilà nitu valeur la nit du tooñ nit nit du waxal nit loo xam ne du du naka su noonu ku ne boo wéetee xam yaay kam d'accord voilà mi ngi noonu kon Adja dafa mel ni alkaati du bàyyi dóor gis nañ ko ci maam maxtaar Gueye ndax la muy wopp wopp bañ ko waxee lu lu lu kiiwut mm. dañu ñokket jóg nee na sax ma euh, kii bu baax waaye daal fexe na ba jóg euh, tontu li muy tontu noo gisee maam wax na dëgg moom suma xarit la maam Matar waaw waaw ñu ngi koy ñaanal suñu borom fëgg boppam bu baax a baax xam nga li mu wax rek mm-hmm. gor boo ko tuumalee mm-hmm. euh, bu heure bu ko mënee yàlla may ko muy wax dafay wax man nag mm-hmm. moo yeey sax génn nag ndax ki dem boo Njaay seet naa ci benn plateau boo xamante ni am na ñaar ñu doon débattre kenn ki ba mu waxee ba tudd doomam dafa mer ni ko sama doom nekk fi war a ko tudd ah. ñu ñu discuter ci yow ñoom ñaar ça veut dire que ni mhm. nit buñ lay wut amuñu la képp ku la jege rek buñ fa jaaree baax na loolu la ñu gi loolu mooy gis-gis fii réew mi toll moom suñ ko bëggee laal doom ji la ñuy laal boo amul dara loo ko loo ko wax mhm. mais di nga di nga wax jëmale ci njabootam nit ku laal njabootam laal xolam mhm. wax dëgg yàlla mais mais man man je crois que Cheikh bi muy génnee propos mi ak bi muy bind livre am bi sax laay euh, woon na lii parce que Cheikh Yérim bu ma juumul bu ma juumee ngeen gànganti ma Cheikh Yérim jiin nañ ko fi viol leneen ak leneen lépp ak li ko nit mën a wax dafa dafa bari mhm. ci loo xam dëgg la du dëgg am na loo xam ne mi ngi ci nopp nit ñi du deñ mhm. am na loo xam nit ñi jàpp nañ ko ci moom du deñ kon boo yëkkati di teg ci ci deru gor koo xamante ni boo feccee jigéen sa jumbax sax mu porté plainte koo xamante ni mi ngi xeex contre valeur yi lépp loo xamante ni valeur la mi ngi ci xeex su bàngoon ba mu jaral ko rayante yóbbu ñuy tribunal yóbbu ñuy euh, prison donc am na loo xamante ni gor gu mhm. nekk moomul ñu koy waxal yéen nii man je crois que mhm. Cheikh Yérim nag man daf ma nduru ko dara safatul Ah. waaw parce que lim bi muy wax yii yëpp. Mhm. peut xalaatoon na ni yii yëpp. dina ko ci fekk wax na ba wax ne Idrissa Seck déggul na ko ci. waaw dégg nga nee na Idrissa déggul français de waaw ko. <laughs> boobu de jot ma ko dégg. nee na Idi déggul <laughs> ah, mu wax keroog bari na de. mi ngi wane ni ndeysaan kuy topp actualité la jërëjëf moytul euh, ah, film yeeg yooyu. toog ci plateau ñëpp wax mënoo wax. waaw dafa doy waar del daw ndax Boubacar Samb léegi mooy sama ménagère yàgg na ay ca mm. euh, alaaji mm-hmm. euh, noo gisee tontu ma maxtaar Gueye jëmale ko ci Cheikh Yérim sekk ci lim ko waxal mm. waaw xam nga man damay fàttaliku boo nekkee xale mag ñi bu lay yar dañ lay wax ne la mm. euh, amal jom jom waaw jom Euh, jom nag lu am solo la boom la bëti wax sànq ci maanaam nit ku dem ba dara safatu dara safatu la waaw loolu sa extraordinaire euh, xam nga man maam Maxtaar su ma doon moom sax am na ñoo xam ne jarut ma di leen tontu. yàlla ji kàddu Seex Yërim fa mu yegg dafa sori nag. waaw non non fa mu yeggit bu nit ku xam euh, xamee waxee rek. liggéey mhm. boo seetee sax maam si boo seetee ci tontu bi. Mhm. li maam tontu nga gis nii Mambatar moom buy wax nit ki lay waxal essayé sax pour blesser nit ki. moo tax boo seetee ay waxam. li Omar wax sànq xam na ko xam na ni du doomu waa ji. du doomu Mambatar yëg na ko ma ne xam na doomu waa ji. xam waa xam na doomu Mambatar te tudd ko. waaw waaw xam nga gis ni. moom li ko intéressé rek mooy mbiru nit ki. comprendre waaw comprendre nga. léegi nag euh, am na ñoo xamante ni bii ci pénc bi moom sooy bu Euh, am na ñoo xam ni maanaam du ñu rus maanaam dañoo waratu la sax wax parce que bu fekkente ni bi yow def nga ay dila ki président ba mu toj. Mhm. yaa ngi dégg. ba ñooñu wili pande la. nga xam ni ci ahlu journalisme yow da ngaa war a sax abale. waaw mbokk mi mbokkal géew bi de. yaa ngi dégg nañ ko lii moom du dëgg. yaa ngi nga ñëw di nettali histoire yoo xamante ni bii. ba ko nit ñi yëgee kenn xamut kañ la. waaw. yaa ngi dégg. waaw te xamoon ni booba nga rocc nit ka mu doon. roof ko beneen nit boo xam ne njëkk bi yëpp dañ ne la li nga wax amut. te kañu rocc sukaa xam na ko. te loolu waaw moo tax mënu cee ñëwaat parce que loo xamante ni bii loo xamante ni bii tey eh, eh, comédien yeeg ndongal daara ñëpp xamoon nañ histoire bi wax nañ ko ba tàyyi nga bëgg a ñëw yow bëgg a wëlbati histoire. vraiment comprendre nga c' que genre nit ku dem bu mel noonu da wóor ne rek waa ji. dafa dafa dellu si ci média bi nag. ak doole mais dafa daanu daanu boo xam lii mu def yomb na de. xëy di saaga nit ñi ñu teg la ci plateau yi. loolu ku est facile. xëy di saaga nit ñi rek di wax nit ñi wax ju bon rek ñu teg la ci ay plateau. mais loolu yomb na c' xam nga réewu Sénégal bi xam mooy lan. Hmm. Euh, maanaam plateau yi da ngay gis nii daanaka amut njariñ hmm. plateau maanaam dañuy indi nit pour muy saaga ay di wax ay nit ñu wax wax rek. loolu moom mooy li nga xam ni mooy problème mais am na ñoo xamante ni bii tey. seen toog bi kan la faute bi kan la. faute la faute bi ñuy invité la. di leen teg ci plateau bi ñoo ñooy faute bi. ah parce que parce que waa ji ci boppam. boo wowul nit du ñëw. ah ñoo leen woo. ñoo woo waaw te ñoo ñëpp dañoo complexé. waa ah, ci kanam waa ji. mais attends léegi waxee loolu man war nañu invité ku ne. léegi Cheikh yi ci penc yaa ko war a apporter la contradiction waaw propos yi mu am man sowaay bu mën na maa xëy soxla Cheikh Yérim euh, invité ko léegi su boobaa da naan man damaa doyee te man mën naa xëy soxla ko léegi nit ki nit ki invité pour man amul problème ki ñuy invité bu doyee bay wax waxi doyee kaay ma wax la ma leen hmm. tey jii mën ngaa invité sukaa mii mbaay waaw ah mu nekk nit koo xamante ni li muy wax ci pénc mi doxut hmm. léegi yow nga gis ko mais bul ñëwee bul nekk ak moom ci même longueur d'onde fexe ko ci biir invitation bi nga jéem koo jubbanti d'accord yaa ngi dégg. loolu da koy da nga ko war a jubbanti si saa li muy wax ni c'est yaa ngi dégg xam nga lu tax nga baal ma saa dama fi invité Cheikh Ahmed Cissé waaw ñëpp ni ma lu tax nga invité ko attaaye waaw pourtant toog wax comprendre bi ngeen di li ne c'est que loolu mooy li ne ki lay invité au mu invité ko pour wax kii ak moom ci yenn yeeg yooyu am yoo xam ne bii tey soxla ko mais yooyu lay bëgg muy def. maanaam da koy gën a ruux di ko gën a xam. nga loolu mooy problème bi. ah mu muy yéemu muy wax ma naan ko ah. waaw non wala nga laaj nit question boo xamante ni lii la ci war a tontu. waaw yow yow xamoon nga ni loolu man ma continuer wax te rakaaju nga rek. Ah, dafa war a am. waaw amee recadré dafa war a am. Ah, dama ko ne Oustaz Alioune Sall. ji hmm. nga boo koy posé question maanaam dugal ci nit. Hmm. danaan la da nga bëgg ma tontu la wala ci nit nga bëgg ma wax. waaw bu dee ci nit ki day bàyyi. Hmm. bu dee nag day wax pour généraliser. mu wax. Mm-hmm. comprendre xam nga des fois pour nga wax ci saa yow. comme comme kii ba maanaam dafa am fu mu bëgg la ko sommation càdd ba lu ko taxaw di wax rek naan ratatatatatu yi rek mu neex rek ma continuer non question ba la question ba nga ndax dama di ko bopp waaw loolu kenn briefé la ko yaa kenn dama jékki-jékki dama déedéet damaa dangaa ree boole ci ma ma pii ko ma nekk ci neex laay wax daa caat leen na xari man defuma leen ko yow yaa non bàyyil ñu ma xañe ko. Ah, ah, non en tout cas. waaw léegi <laughs> waaw léegi kon Mame Makhtar ginnaaw bi ñu ko ñaanalee kon. ndax da ngay dëppoo ak bëtti la xuma kan moo ko wax ni waru woon a tontu. non jot waaw yow yaa ko yow ko waru toog waa léegi nan la gor di toogee ci am pénc ku mel ni Cheikh Yirim ñuy dégg kàddoom fu sori nga xam ne am na koo xam ne nee na daa meroon ak moom Ahmed Cissé waaye bi mu déggee mu bind ko ci livre nee na juboon ak moom waaw xam nga am na yoo xam ne yomb na muñ am xam ne yomb na muñ xam nga tey tappaas na Idrissa Seck

kenn du ko wuyu wax na ci sax ko wuyu day dem ba mu jógee buy wax day mel ni benn waay bu katakay di buy wax rek. waaw mujj gi bu xasee bi noonu lañ ko fonkee woon ay temps. ah fonkee woon très bien. ce qui s'est passé dégg nga li mu wax ma parce que man dama ko daan topp. waaw waaw léegi na sax na kanam. parce que dafa ñëwoon rek xam nga la la xam nga bukki bu sàngoo dër bay muuroo kii booy yi booy yi nga xamante ni bii fii lañ nekk ak yooyu ñu naan leen diw jeune Afrique ñoo xam jeune Afrique comprendre di ngandal kii yi affaire yooyu mu napp leen waaw mu napp gars yi ñu naan non booy jeune Afrique la ne Sénégal nañ bàyyi yooyu beneen saa yi nga gis ku nekk jeune Afrique ku nekk kii lu bi Afia ah, FM. ñoo yem wala mais nag saa dafa ni ko neex la ko utiliser mais dafa am talent. di waxtaanee réew mi nag. effectivement da ngay kontaan day neex a seetaan day neex a dégg. mu euh, saan toog laa di waxtaanee réew mi. effectivement xamul dara ci réew mi li la koy wan mooy. nii muy nga xam ne moom lay def mu doon xam day mu wan la ne la. loolu diw maanaam dafa xam li ci biir. bi mu nee fi déglu ma sëriñ li mu xam yëpp li mu xam yëpp di ko waxee rek fii taxaw ne Poutine du yor téléphone. waaw gars yi gars yi mu ne Poutine du seetaan télé.

yéen a ngi suñu yoon ci dama la koy wax pour nga xam ne moom dafa jóge fële dem fii dafa jóge fee dafa jóge ci ay président mais est-ce que doo bàyyi Bassirou ci yéen ñëw Souka Mbaye wala Souka bàyyi leen Bassirou bi ñëw non tëjal yow it benn melo tëjal jërëjëf kon mi ngi noonu dama dama dama jaaxle lii lañ indi woon di wax ne yéen am na ku ma woon naan ma sooy boog saa ñoogu ak ah, xam ku la bëgg lañu ma ne ah, yaa ngi juum de. dañ laa ah, xam nga li waaja xam na li nga beneen bet mooy boo boo paree nga dem xool euh, la 14 commentaire la 14. Hmm. après boo paree nga dem xool ko ci solution info. xool dama xool ko rek bàyyil noonu euh, boo paree nga dem xool ko am nga foofu ay soppe macha allah. wax nañ ne fa lu am solo la 14 yirim bàyyil tooñ maam maxtaar génneen nga bàyyi tooñ maam maxtaar ñu lay ñaanal yàlla yaram wi euh, sedd ak bii jërëjëf